sama kër gi fi waa waaw tey kat damaa toog rek ma ne xaaral ma ñëw. léegi ma ne kër gi dafa am malade. waaw loolu am na te bu lijjanti ndax wér na wala wérul dama fee am malaat yaa ngi dégg te fii dama fee nekk ak samay nawle bëccëgu weeru koor gi nga ñëw sama kër gis nga ma nii dama doon génn. waaw tey sax yàlla dogal na li ngay xalaat bu loolu tey ñëw ma pour ràcc. tey damaa ñëw rek pour am kaabu urgence bëgg nga doxal ma ko vite fait. bu rek ma jël parce que amaguma ndogu moom laay dem li eh, am nga léegi léegi maanaam bii moom bu bii moom bu jàllee jàppal ni saa xam nga lii moo ah, <laughs> tax ñu mën a dem dëgg la léegi fan yi waxoon naa la am na dof bu fan yi du dof hmm. doomu xaj juy dóore waaye yow du la dóore du la dóor dégg naa càgga gi ci moom a tax biir ba ovaal mu ni mbëkk laa mooy bu ma tegee loxo mat pàcc. léegi moom fexe sax mu teg la loxo waaye yow daal damaa bëgg nga jël ko mel ni ku ko nopp tono boo ko parce que man boo ko xawee jàpp mel ni ku ko nopp noonu rek man dina ma dimbali ndax nit da koo xam yow daal mel ni koo bëgg de daa bëgg jigéen de. kon yow daal su ma déggee da ngaa ñëw pour ma dem mbaraani. mais du tee la man nga nopp ba pare waaye waaw man moo ma jaaxal yow nan la nobee ba pare nga bëgg maa mbaraan loo waaw loolu xam naa du compliqué ko moom falaa falaa la moom fexeel daal nga man moom xaalis kooku da nga koy mbaraan noonu rek si el bi maa génne lépp waaw kon baax na ponkal la doomu xaj na day dóore ñun la sonal daal mais dégg naa jigéen mooy point faible am daa am feebar moom ci jigéen loolu nga wax waaw xamal ne moom bu ma dóoree waaw baa mu xosi ma baa mu gaji ma dana leen yoo laay porté plainte du la dóor du la xosi du la gaji tagala bu la gisee rek xel mi du demati ci ay dóor léegi nag xam nga lu ma bëggoon mm. ñu yooru nànk di dem bu ñu demee ñu présenté la ko rek nga doxal. waaw man foofu soxna si sax ñëw fa. waaye eh, ko ma dóor de. déedéet si ñëw ndax dégg naa sa jabar moom moog bambarjee ñoo tolloo. waaw dafa ngandu mais moom it daa doxi famille am la famille la rek ndax ñoom ñoo ko fay. waaw baax na kon nañ dem. maa ngi lay jël maa ne bàyyi seen taat yi laa bàyyi xel doxal rek salaamu aleykum negal ma andi la seet negal am maa ngi daa tàng nag magal bi xanaa ni lay gën a kii kii baax na merci di xale yi ko yóbbu yaa kor ma yaa ngi nag xaaral ma temps yi benn iPhone laal laal waaw Ça va fils. Tu vas, hein? Ça va. Nji jàmm. sant yàlla. mais paa bi la fi indi boobu léegi génnaatagul de. moom daanaka woon dafa am lu muy seet xaw ma je sais pas moom laay xaar nii sax. te looy dox di ànd ak paa bi. waaye ko. amul rajo ngeen mën a tardé seen boobu quoi. yéen da ngeen a dóorul fayiwule amaloo leen kenn jariñ. kuy dóor ak kuy màtte kuy gëjee ngi. Baadu di nga xam ne maa la gën a doon Tigresse. boo doonee Tigresse mu dénk la suma coppati. naa la ko coppatil ba dara dootoo ko di seet. dama bëgg buloo ci dara. yow bu fekkee rek ñeme nga sa bopp te xamal ne maa lay daan te dootoo ngemboote. loolu laa bëgg. kon na di na ma bàyyi <sighs> nee naa la lépp loo xamante ni si luy ñuy bës la muy génn. naa ko bés yow ba mu jeex. dara dootu ci des. mais. Eh. yow kay pareel rek. amoor bi ngay wax nii sa gëj naa koo am. ma doo ma benn xale te duma wax tamit wax ju bari. Eh. damay jëf. leen hmm. bi bañ a bari. ñu bëgg kon fu ñu ko torootee rek ñu torootee ko balaa boobu. defal ndànk mën nga ne la loolu toj. yaa xam nga ni kër gi nii teraanga gu nekk nga ah, dem dinaa kontaan. teraanga nag bàyyil yoon teraanga da lay teral. tegal lii. teral na. yaa téye suma coppati. nga ni ay loolu deex yaral sa am nga wéy boo yar. yow xoolal yow bëggal rek. <laughs> dee ruux. <laughs> nee naa la lu raw loolu dinaa la ko defal. mani yow daal topp ci man li ma bëgg. séeréer. séeréer. bismillah. ay kon kii sama coppati laa bëgg. yow sax looy liggéey. man waaw. donc ay. c'est que képp koo xamante ne daal. ginaar yi. waaw gis nga kii. waaw faddalal ma ko ñaari ginaar. ah góor yàlla nag yaa ngi bëgg a dépassé nag. dama xam ne ginaar yi du aliment du jox du xaalis boo ma jox ne ma naa leen ci jëndal lu ñu lekk. li ngay wax yëpp waxuma ko reyal ma ñaari ginaar pour sama gan gi ma dugg ci biir ma def man ma ginnaaw ginaar yi tey yaakaaruma di nga lekk ndey ci ginaar yi tey mukk xalaatuma ko yow jox la ñu ma ginaar yi nga lekk gisoo kaaf gi li mu da ko fàtte wala dama koo faale dama laa dund wuy ma bàyyi leen ñu ñëw toog man ñii dañ may daanal ñoo may faj wuy ma woowal cas ngeen ñëw toog ñu raaj fii sama jotaay mais man ñii ñoo may daanal xanaa bëggoo ma su bëgg la ba ca la ñi waay eh. bàyyi leen rek ñu ñëw toog ñu ràcc ñëw leen toog fii ñoo laa waxal doo dégg dewuma pour lan may bu leen dem de man duguma de pour may dug waaye yow yow bàyyi ñii kaay leen toog man yéen a may daaneel wool ngeen ñëw toog waaye xam nga tey maa ngi wax ngay jéem a dëgër dëgër yow dama ay góor lañ ni yow. da ngay mën xoolal yow eh la nattee la xoolal eh bàyyil booy bi ah bàyyil kii yow rek la woo pronotif nga. kon tey tey nii ngeen may taxawoo nii lañ lay taxawoo ak neneen. ak to voilà. te bisank ci ma déclenché sa ndey bot ci kër gi. maa ngi ci biir ragalu na nag. Ah, faale wuñu la pare ragalu la. faale wuñu la ragalu la. faale wuñu la. ni pajaas. ngay ma. andil baa bi. andil baa boobu ñëw. Eh, eh. ñoom gis nañ fii ni mu toll. voilà xam naa ko faale. ñun dund ñu ko de. yow doomu lañ doon déglu. léegi laa nu kon man hmm. wax yëpp ndekku na suñu nopp cagala. càggale yàlla boo jàpp ci béré néeg bi moom muñu muñu mais bu <laughs> tuuti day day yoxaw oh, oh, levier bi baaxul si mu ne yaa lii laa bëgg nga toppee ko mm. boo leen amoon doom sax moo ma gën a ne ëmbal jóg fi xel ne ëmbal jógoo xamoon de kii dama ne loxo rek bu mu ko tegee ma pàcc ci yéen daal li ngeen bëgg dinaa leen ko defal dina leen may jàmm lii daal laa bëgg waaye doom moom merci doo ci damaa bëgg kaawam gën a aggravé ñu tëj ko tëj ndeyam rek